À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de de verre, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye et Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 lu ko ci neex rek sañ na koo def kon gis nga ni waajur bokk na ci bunt yi gën a gaaw ci yóbbu nit yi àjjana yi gën a kawe waajur bokk na ci waaye bokk na ci yi gën a mën a maye ak texe di yombal mbiri doomu aadama itam fii ci àddina lépp lu nit ki di wut bu ci jiitalee ñaanuk ay waajuram ah, leneen lu mu ca teg rek yàlla mën na koo dimbalee mu am loola moo tax kon nañu delluwaat fonkaat waajur yi bu baax a baax rawatina gone yi nga xam ne culture soow bi nga xam ne dugg na ci dëkk bi fab bi na leen ci lu baree baree bare ba nga xam ne ni ñu waroon a fonke seen i waajur léegi fonkatuñ leen joxatuñ leen cër bañ leen war a jox lu ko waral mooy ay film yi ñuy seetaan ak documentaire ak yeneen yoo xam ne la muy jàngale bokkut ñun ni ñu war a doxee en tant que julit loola ñu delluwaat yaraat gone yi ci bu baax a baax ñu xam ne waajur amut ndend amut moroom ah, leneen lu ñu la mën a jàngal lu weesu fonk ko ak ko teg ko ci kaw loola booba xamal ne ñu ngi lay nax waaye itam ñu ngi lay dugal ci kàmb goo xam ne xamoo fu muy jóge moo tax ku bëgg ngërëmul yàlla jaare ko ci ñaari waajur rek moo ci gën a gaaw sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ridallahi fi ridal walidayni waaye na wa soxtullahi itam fi soxtil walidayni euh, Tirmizi ak Ibnu Habbaan ñoo nettali hadis boobu mu ni ngërëmul sunu borom tabaaraka taala daf koo roof ci ngërëmul ñaari waajur boo fexee ba laq ngërëmul sa ñaari waajur rek xamal ni lul yàlla dugg na ci biir waaye tam seenub sànje itam noonu la sànje bi yàlla nekk ci biir bis bu ñu la meree wala ñu génn ci yow te yaa def la ko waral bu boobaa nag xamal ni euh, sànje bi yàlla ma nga ci biir seen mer moomee ah koo xam nag waajur yàlla def ko nattoo waajur wu naqare deret wu naqaree dëkkal wu naqaree jëflanteel kooka na fexe ba euh, doon aw daal rek lu ñëw rek mu nangu ko tegoo te bañ a jéem a gis boppam ci benn anam wala ci benn jamono ndax saa su ko defee rek liy wolof di wax moo wér mooy waajur moom eh, aw xeer la doom ji di mooy nen bi nen nag bu bu dalee ci kaw doj wa mooy moñoxoo bu doj wa dalee ci kanam kawam mooy moñoxoo ginnaaw rek mono moñoxoo gi yow la yow la fare yow yaay fexe bay sàmm sa bopp ba dara du la mën a moñoxe insha allahu taala eh, mbokk ñetteelu tomb bi ci bakkaar yi gën a mag ci doomu aadama di fàggu mooy seede ak neen seede loo xam ne dara wéru la ci amoo ci benn xam-xam benn dañ laa jënd walla ñu neexal la wala nga am loo yaakaar ci nit ki ba tax nga seede loo xam ne amoo ci xam-xam loola mooy troisième degré ci bakkaar yu rëy yi nga xam ne doomu aadama mën na ko fàggu moo ta alxuraan ni wajtani bu xawla zuur da ngeen wattandiku waxi neen wax joo xam ne dara newut ci biir lu weesu ay intérêt dong waaye dara ci yàlla ak dëgg niw ca loolu nee lool loolu la ngeen koy wattandiku bu baax a baax ndax mbir la mu diis moo xam ne euh, lam mën a jur ci ay lor ak i fitna ki musiba dafa yaatu lool ba nga xam ne ki ko def sax man na ko woyefal xamut ni ndekete li mu def nii la garaawe xamu ko fekk am na yu bare bare bare yoo xam ne euh, yu mën a euh, sosoo ca biir lay doon ndax ba ci njëkk rek mooy wax na lu du dëgg te wax wax lu dëgg sallallahu alayhi dafa doon koo moytandi moytandiku loo woon iyaakum wal kadib ba hadis ba jeex ndax nee na wax lu dëgg day yóbbu nit ki ci eh, kàccoor kàccoor day yóbbu nit ki jëme ko ca sawara wax naka noonu itam waa ji xam nga ni bi mu seedee lu du dëgg seede ak neen tabbal na nit ki ci guuta tabbal na nit ki ci guuta goo xam ne xamut fan lay jaarati ba mucc ca mën naa mu jafe lool bala caa mucc mën naa am dana ci tëdd ci kaso ba lu yàgg mën naa dana ca fay ci alal lu baree bari mën naa am ab liggéeyam dana ca tarde ak yeneen yu baree baree bare yoo xam ne euh, mbokk yi mi ngi ci biir seede seede ak neen mën na caa ñàkk sax dem na bañ mën caa ñàkk bakkanam yooyu yëpp xaj na ci ci seede loo xam ne lu dut euh, noonu la te mu mel ne nag lu tasaaroo la ci société bi euh, nit ñi dañuy seede lu ñu xamut di jàpp rek ci ay demaleeki fekkle dégg naa ak wax nañ ma ak liir naa ci réseaux sociaux yi yooyu nga xam ne dara mën na caa bañ a laale ndax bisu set nga dégg nit ku ñu tàggee ci réseaux sociaux yi bu subaa nga dégg ko muy wax ni liñ ma waxal dara mu ci maa ngi nii toog sama njaboot foofu nag bu fekkente ni fa la nit di jëlee xibaar ah, na jàpp ni la muy jàllale ak la muy gëm ak la muy mën a waat ah, la ci ëpp ak neen lay doon kon nañu delluwaat ci di vérifier bu baax a baax di xam li ñuy seede mooy lan ndax seedekat lu garaaw a garaaw a garaaw la mën naa jur fitna yu bare bare bare bare bare ndax seede daal dafa mu war a mel ne la yont yàlla yuusufa waxoon wa ma shahidna illa bi ma alim naa nit ki lépp loo xam ne wóoru ko amu ci yaqiin nga xam ne egg na ci bu ñu doon teg paaka ci putitam li muy wax du ci dellu gannaaw bu eggut foofa waru koo nangoo engagé waru koo nangoo seede lépp loo xam ne bu ñu tegoon paaka ci sa put nga dellu gannaaw ah xamal ni loola seede ko waru la waaw kon seede noonu la garaawee foofu Euh, noonu la ko nit ki war a jàppe mu xam ne euh, seede daal li nga xam dong nga war a seede bul seede loo xam ne euh, ak neen la bul seede loo xamut buñ la dugal ci seede loo xam ne fekke woo ko ñu naan wool diw gisoon na ma ak déggoon na ma yooyu yëpp daal wóorut nit ki buy seede na seede lu ko leer nañ ñi loo xam ne bu taxawoon ci kanam suñu borom tabaaraka taala itam du ca deltu gannaaw loolu mooy walladina hum bi shahadatihim qaimun ñeenteelu tom bi mbokki jullit yu baax yi mooy rey bakkan boo xam ne yàlla def ko xaraamal rey bakkan boo xam ne defut ñu lu tax ñu war koo rey loolu képp ku ko def eh, nga xam ne def na tooñ gu màgg màgg màgg màgg ndax bakkan de foor na foor goo xam ne eh, sunu borom dafa wax ni man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala annaasa jamia koo xam ne rey nga benn bakkan bu defut dara tooñ ko rek rey ko daa mel ne danga boom doomu aadama yépp daanaka ñoo tolloo bakkaar ci ci ci rëyaay waaye wa man ahyaaha fa kaannama ahyaa naasa jamia ku fexe ba bakkan boobu dund itam yow de mel na ni dundal nga jaam ñëpp moo xam dafa xiifoon di bëgga faato nga jox ko lu mu lekk moo xam da doon bëgg a tàbbi ci kàmb nga jàpp ci loxoom moo xam courant da ko doon bëgg a maas nga àndale fiil lépp loo xam ne daal lu sowee bakkan la benn bakkan boo ko sowe mel na ni sowee nga mboolem doomu aadama yi kon loolu xam ngeen ni tuyaabaam euh, rëy na lool lool lool moo tax képp koo xam ne rey na jullit te tey ko wa man xatala muminan mutaammidan fa jasaahu jahannam xaalidan fiha wa xadiba allahu aley wa laanahu wa aadda lahu adaban adima juróomi yëfa ngi yoo xam ne ci rey bakkan la daje mooy suñu borom dafa wax ni ku rey bakkan te tey ko te tey nag la ku tëyit moom dana joxe diya ak ya ko yoon di teg yooyu beneen mbir la waaye ki ray te tey ko kooku am na juróomi yëf yu daje ci moom yoo xam ne yàlla moo ko waxal boppam kenn waxalu ko fa jasaauhu jahannam ba ci njëkk mooy ak payam moom du dara lu wees sawara <clears throat> sawara si ñuy wax jahannama nga xam ne bokk na ci sawara yi gën a suufe gën a tàng eh, nee na foofa la jëm benn ñaareel ba mooy xaalidan fiiha dafay sax dakk du fa génn mukk ndax am na ñoo xam ne bañ lakk leen lu toll ne lañ bàkkaar yàlla mën na leen ay génn ci yërmandeem dugal leen àjjana waaye kooku moom xaalidan fiihaa moom dafay sax bu dàkk du fa jóge mukk kon wal iyaasu billahi taala wa xadiba allahu alayhi yàlla neen danaa ko mere mer moo xam ne kenn mësu ko mer mer mere mere kenn merum yàlla nag euh, maam dara da caa tuutut dara da caa tuutut ndax koo xam ne si lépp a ngi ci loxoom kooku bu la meree foo foo koy waxe ji ndegam borom kër bi moom këram donc boo bu la meree boo yeexee doo añ wala boo yaxe mun la génneel néeg bi wala doo reer ah kon yàlla mi yor sa lépp nag yor sa bakkan yor sa lépp kooku moom bu la meree nan nga xala def lu mbokk yi ak jaaxle ngoo goo xam ne gu mat a wóote wutal solution la waaye yemu ci de yàlla nee na wala anahu danaa ko rëbb malaaka yi rëbb koo jinne yeeg ñëpp rek kenn ku ne di ko ñaanal alkande ak musibam yàlla ak yàlla sori la yërmandeem waliyaasu billahi taala yooyu te kon lu garaaw a garaaw waaye yemu de yàlla nee na préparé naa ko mbugal moo xam ne mbugal la moo xam ne kenn mënu koo leeral ndax na muy def doomu aadama mëni su ko misaal wala yaa subi taala yàlla na ump ñun ñëpp barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke xaadimu rasul yàlla na ump kon euh, juróomi mbir yu garaaw yooyu yooyu yëpp mi ngi ci bakkan mu mel ne nag ray bakkan kooku léegi nit ñi dañ koo yombala yombala yombal ba nga xam ne fukki dërëm sax da ngay dégg ñu ne ray na ko ci weccet lañ doon xëccoo mu deseel ko fukki dërëm jam na ko paaka faatu na yu ñekk fayda yoo xam ne amut benn maanaa ñu di ca def lu toll ne bakkan nga xam ne boo ci xosi woon nit ki képp yoon da laa war a tëj ndax jëru ñu jël ca bakkan nag far kooko far fii bàyyi ko ab xuloo ñu ni jam na ko paaka ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mbokk yi lu mat a bàyyi xel la bakkan du ay caaxaan ndax loo xam ne benn yoon lay am du ñaar loolu kenn waru koo fooye nañu xam bu baax a baax bakkari doomu aadama yi li muy jar nañu ko sàmm kenn ku ci ne nag am nga ci responsabilité ak na nga ko war a mën a sàmme bu dee ci sa njaboot nga war a yar bu dee yow sa bopp yaay delluwaat sa bopp xoolaat lu mu mën a doon daal ku ne am na ci responsabilité ñu xam ne bakkani doomu aadama yi du lu ñuy foye te lu garaaw la te képp koo xam ne rey na ko te tay ko juróom yooyu ñuy wax yépp mi ngi ci biir ànd ak nag mën naa am kasub àddina ba mu cey am ak fitna àddina ji ndax yi yàlla lim moom yépp ëllëg lay kii moom waaw kon nag bokkut ak li nga xam ne moo ko war a dal fii ci àddina kon lu mat a lu mat a la eh, juróomeel ba mooy xasful muxsanaat wattihaamuhunna ak tuumaal leen tuumaal as gor ak sànni ko aw ŋàññi woo xam ne xamut fu muy jaar ba teqalikook moom mbokk yi loolu benn mbir benn bàkkaar gënu koo gënu koo rëy moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ni walladina yarmuuna almuxsanaat summa lam yaatu bi arbaati shuhadaa fajliduuhum thamanina jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada ulaika hum alfasiquun ñi nga xam ne dañuy tuumaal jigéen ci lu noona wala sax xëy na góor ñu tuumaal ko lu noona ci ay ñaawteef te amuñu ay seede yu ko mat bi arbaati shuhadaa la wax dañoo bëgg booy tuumaal nit lu mel noonu mu am ñeenti seede yoo xam ne kenn bokkut ak moroom ma fu mu xëyee ñu daje te loola ku ne xam na ni daanaka mënta nekk loola kon mooy bu leen tuumaal kenn rek la bëgg a ndax seede sart yi tax ñu war a mën a tuumaal kenn lenn loolu mënta am juróom ñeenti nit ñu bàyyi ko wut fu ñu xëyee ñoom ñëpp yamandoo ca ñu gisandoo ko ci bët kenn nettaliwu leen loolu mënta nekk kon mooy bu leen tuumaal kenn kon loolu alxuraan tere nanu ko mu ne nag ñi nga xam ne dañuy tuumaal asgor di ko sànni tuuma yu mel noonu ñooñu nañ leen fopp caw leen kenn ku ne juróom-ñett fukki yar samaani na jalda nañ leen fee nañ leen dóor juróom-ñett ñaareel ba itam bu leen kenn nongoolati seen seede mat matatuñ seede ci dara waxuñu kañ koy tuumaal moom dañ ko waxuñu ko waaye yow mi ko tuumaal te sart yi ci yow yow la yàlla wax ni nañ la dóor juróom-ñett fukki yar nañ la teg fële bu la kenn dugalati ci lenn lu ñuy seede xamal ni ma tóor ci seede waaye wax na yàlla nee na ñooñ nag ñooy yu mag yi ulaayikumul faasiquun kon euh, mbir mu garaaw ngoog mooy jiiñ nit tuuma yoo xam ne ci wàllu diggam ak jigéen la jëm euh, wala jiiñ jigéen xam ne diggam ak góor la jëm euh, nee mbir mu màgg a ngir la ca mën a juddoo ci ay jafe moom itam lu bare bari la ni mu nekke woon ci seede ak neen rek yu baree bari moo ci mën a juddoo benn aw askan mën na caa dàqu diggante nit ki ak ak euh, diggante soxna seeg lim euh, doomam ak baay bi ñu jàppoon ni woo ko moo ko war a mën a jur aw askan mën naa dàq foofa ba baay ba dootu ko nangoo jur ñaareel ba ak fase mën na caa am sëy mën na caa tas euh, sëy diggante ba jeex moo xam ne yàq ak bokk dolli ca walla lu mën a doon la ca toppit mooy bu yooyu yëpp amut mën naa yëngal sëy ba yëngal confiance bi nga xam ne moo amoon ci diggante ñaari way dencante yi ba nga xam ne kenn dootu wóolooti sa moroom loolu lépp mën na ci caa juddoo ci ay fitna yoo xam ne eh, benn wax bu dansé bu nit ki waxoon rek moo ko moo ko waral te itam yëmut ci loola waaye day des di ab ñaas day des di ab gàkk-gàkk ci kanam ndaw si wala ci kanam góor gi képp ku ko gisati rek te déggoon tuuma ja la sa xel di njëkk dem moom la ñu waxaloon nangam bu la boo ko séenee mu ñëw rek sa xel foofu la njëkk dem moo tax tuuma tuuma baaxut ndax bu buñ tuumaalee nit ki rek foo ko séenee rek sa xel a ngay dem ca lu ñaaw loolu nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko jiiñoon loolu euh, bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne tuuma euh, dana ko teg nit waaye bokk na ci mbokk yi doom ju juddu war a am baay war a ami kayit war a jàng yooyu yëpp jafe ci moom ndax kenn nanguwu ko baayoo te dara waralu ko lu weesu benn baat bu nit yëkkati woon jëme ci ndeyam loola kon euh, problème bu garaaw a garaaw a ngoog boo xam ne lu nit ki gën a màggat rek musiba ma di gën a yàgg di gën a metti di gën a naqare saafara kon Allah